le mythe Macky s'effondre est-ce qu'aujourd'hui la sorte d'Abdou Aziz mu peut-être parce qu'il avait déclaré sa candidature mais quelle que soit la personne du président de choisir on peut s'attendre quand même un clivage au sein de de Benno Bokk parce que je pense que Benno va imploser et va exploser je l'avais dit dès le début le journal Tribune a résumé toute la situation c'est le mythe qui s'effondre tout le monde, Abdou Aziz Diop par exemple taxawoon président Macky et pourtant si on la situation qu'il décrit mhm. ne date pas d'aujourd'hui mhm. lan il l'a dit aujourd'hui et il l'a dit avec euh, euh, des mots crus. oui des mots tellement crus. venant de quoi il 12 ans. et il n'est pas plus méritant que le poste de responsabilité il a dit si déclaration événement yu juin 21 juin. Mm-hmm. Mm-hmm. mais moo tax nga am. mars 21 déedéet déedéet waaw kañ. daf ko ne farba nga mën a dugal ay pexe. pexe moo tax nga am un opposant aussi minable. voilà que Ousmane Sonko. non loolu wax na ko. après mu ne ko Farba Ngom moo la dugal ci guerre en mars 2021 Farba Ngom moo la dugalaat ci guerre en juin. xam nga. légi li li li li mu bëgg a wax foofu man foog naa ne. Hmm. dina am lu bëri loo xamante ne dans les prochains jours. dina hmm. kalaate hmm. si si dina kalaate si donc euh, maintenant là où il me surprend. Euh, moom Aziz Diop. mooy président recevoir la wala président def la candidat. est-ce que loolu daf la def président. de la république pas du tout. booy déglu Abdou Aziz Diop day mel ni président Macky Sall moom mooy def président de la république comme si bu ko recevoir day donne président comme si beaucoup ko investir day donne président. Oui. comme si légitimité moom mu ngi koy tiré de euh, président Macky Sall gëstu ko. Hmm. en vérité euh, président Macky Sall comme beaucoup de sénégalais du moom kese beaucoup de sénégalais. Hmm. bien mu yëkkatee loxoom ñëpp ay réer la leen def. man mii bokk na ñoo xam ne ndi si actualité Aziz Diopati Ouais, on a évité Abdou Aziz Seck am na ku avoir photo Abdou Aziz Seck ne ma du Hmm. Euh, cadre républicain vous vous rendez compte c'est-à-dire mon petit papa, mu ngi euh, war du base locale moi tax nga am envergure nationale ainsi de suite hmm. je pense que il s'est tiré une balle dans la tête lui-même tout seul et que président est-ce qu'il n'a pas raison de ne pas le recevoir alors parce que am a déclaré déclarer ses mbir ci biir recevoir même. je ne pense même pas que le président ait reçu des gens oui oui tout monde. entretien Moustapha Niass di def hmm. Ah, mais n'oubliez pas que lui est également dans le palais hein. non, non non non président non il a commencé les entretiens. Ah, il en a reçu certains après vous xam des voyages. Euh, parce que parce que il a reçu Mame ok oui a commencé l'entretien. yi des obligations internationales délégué ko euh, Moussa ok.

politiquement, je dis même que politiquement, hmm. ce n'est pas, euh, Mais 5 ni aujourd'hui, on est japonais. Non, il y a 5 qui sont favoris. profils euh, favoris.

Nous parce que DGID euh, mm-hmm. mais euh, il était proche du régime génération du concret voilà merci direction générale des impôts et domaines mm-hmm. jox vous xamul voilà non vous faites d'accord dire quand tu bases ton argumentaire sur des faits alors que faits yooyu peut-être que avéré wul mën nañ ci wax. ça va te ah, permettre de reconsidérer. non non da ngay bàyyi ba samay argument génn da ngay ba samay argument génn nga xam fee yi fan laa ko teg jàpp naa ne euh, balaa balaa ñuy def remaniement ministériel. Hmm. ba Amadou Ba di nekk premier ministre ba ñu bëri ne premier ministre par défaut la am na déggoo yu xóot yu mu amoon nag Karim Wade ba pare yu xóotu xóot yu am parce que loolu doon ko amul yenn rapport yi ak Karim. mënoo am loolu noonu ci moment boobu. c'est waaw bi ñu ko defee premier ministre loolu lépp naxsaay euh, mais am na déggoo yu xóot yu ñu amoon seen biir euh, en plus euh, Amadou Ba il a soutenu entre les deux tours le président Wall financièrement comme il l'a fait avec le président Macky Sall Amadou Ba. les gens parlent de appel authentique et non authentique mais nañu wax sénégalais authentique ou non man de jàpp naa tu veux créer un débat sur la sénégalité am frange non ils sont des sénégalais parce que comment mën voter sénégalais ci Sénégal ku sénégalais authentique bi nga ci teg. Oui, waaw waaw sénégalais mais Japonais, naa ne am nañu ay euh, mbokk origine du seen origine du sénégalaise Donc ils sont euh, des sénégalais ñu ci bëri ànd mon regard Bachir c'est de quoi je parle mais je ne vais pas glisser sur ce terrain là pour le moment peut-être que après dinañ ko wax mais Amadou Ba bu ñu ko sampee hémorragie bi yëpp day am ci biir APR. Aliou Nguy day génn Abdoulaye Daouda Diallo day génn. Abdoulaye Diouf Sarr day génn Mame Boye Diao day génn kon. le finalement c'est tout, l'alliance pour la République déjà les contestations hmm. vont sur euh, Amadou Ba or authenticité wu Abdoulaye Daouda Diallo quand même ce n'est plus à à, à démontrer moment bi nga xamanteni ni ngi koy mettre au frigo ci biir impôt et domaine lolu Amadou Ba mi ngi la woon té li tax ñu waroon ko mettre au frigo c'est parce qu'il soutenait le président Macky Sall donc sa loyauté sa fidélité pour le président Macky Sall militant de première heure authenticité à boobu moom Abdoulaye Daouda Diallo nga koy jox au détriment de Amadou Ba. est-ce que vu son envergure nationale. oui a un sens pour nous, nous aussi. non non ku si nekk am nga avantage am forces et des mais c'est vrai que xalaatu Macky Sall la moi je suis allé à euh, dans dans dans la région de Kolda. j'ai vu des meetings en faveur d'Abdoulaye Daouda Diallo. ok bul le ne Fouta rek la région de Kolda laa wax et je pense qu'il était venu même ça. donc y a des ramifications Nous soutenir au-delà du football, légitimité historique légitimité euh, politique fidélité et loyauté envers le président Macky Sall. loolu amoo Amadou Abdoulaye Daouda Diallo qui du ko ci tëqalee ak keneen. waxatuma la ak mais euh, quid du Sénégal. Euh, mais quid du Sénégal. non on parle de la candidature du de Benno pas du Sénégal. qui n'est pas une candidature de sentiment le président l'a bien rappelé. Oui, mais je parle pas de sentiment je parle de légitimité historique je parle de fidélité je parle de loyauté mais fii ma toll nii ba fii may wax ak yow. Amadou Ba xaw ma fuy baasam. parcelle lañu wax parcelle dañ ko faa duma bu yàggul dara.

donc monde mën na ko may ensemble. ensemble. mais Djoussar, il est légitime. Djoussar, il est authentique Djoussar, il est fidèle et loyal au président Macky Sall. et Djoussar, nous n'eût les coups bas de Abu Douba, il allait remporter le bëri Dakar ah oui. ah oui mais mais, la candidature de Mame il a été parrainé par qui Mame ci biir APR la Mame Mbaye bokk noonu. APR a ah. gagné APR APR a combattu APR la candidature de Mame Mbaye je sais pas mais l'APR a combattu l'APR à Dakar. Diouf Sarr ak Barthélémy Dias ci wàllu xam-xam ci wàllu mën a doxal kenn du leen tëkkale nee la Barthélémy Dias. tu veux oh, don bi mënoon na doon leneen mooy gagné rek. man li ma jàpp. Mm. ci biir ñii ñëpp lu ñuy wax ay favori ak nangam. la candidature idéale. candidature bi ma jàpp man. Mm. moo gën a mën a prometteuse ci biir benn bokk yaakaar c'est mm. la candidature de Mame Boye Diao. Mame Boye Diao kenn dégluwu ko. Euh, si président recevoir na ko Si, si, si. Je le dis de sûr. Je le dis de sûr clair président Macky Sall wax na recevoir na Mamboy parce que Mamboy lui lu ñuy négligé Mamboy du ko pour lui demander de renoncer à sa candidature ah voilà ah dañ la egg non non non eggal si wax mais recevoir Abdoulaye Daouda Diallo c'est pourquoi c'est pour demander de renoncer égal si c'est pour demander à non bu dee il va demander à tous de renoncer mais parce que ben candidat lay wut mooy wut benn candidat kay ñeneen ñëpp xanaa ku nek da nga naan leen sa candidat mais au moins au moins doucement rek doucement bu dee yow da nga mais au moins il faut dire Mamboy Diao a été reçu suis pas mais le président qui demande de renoncer. mais tout le monde ça au moins il faut le dire. voilà c'est ça l'information na egg si information. da ngay liggéey pour am benn candidat. koy dajeel kay da nga naan ko yow ndax mën nga ànd ak kii est-ce que mënoo ànd ak kii renoncer bàyyi kii nangam nangam pour fédérer kon donc Abdoulaye Daouda Diallo wax nañ ko renoncer Aly Ngouille Ndiaye wax nañ ko renoncer Diouf Sarr wax nañ ko renoncer. mais pourtant yooyu yëpp. pourtant yooyu yëpp impressionné wu. non non non yow yow yaa wax lii yow c'est-à-dire que Pape Moussa defal ndànk. yow yaa ñu xamal ni Macky Sall a a reçu Mamboy. Boye nga ne yow nga ne yow pour nekk renoncé la. waaw ñeneen ñëpp wax na leen ko la léegi léegi ñii ngay tudd nii. je n'ai pas connaissance que Macky les a reçus. j'ai connaissance que Moustapha Niass les a reçus. waaw waaw waaw xam nga c'est différent. oui ma léegi non il travaille pour avoir un seul candidat qui réunit le Benno kon ñoom ñëpp boo leen recevoir eh, xanaa da ngay bëgg fu ñu def concession pourquoi euh, la demande de concession chez Mamboy poserait problème Je ne wax sama je ne wax sama gis-gis la wax la candidature innovante la candidature idéale si xamante une légitimité locale parce que base bay si sa weewu tànk boo ce n'est même pas tributaire du choix du président Moi, est ci local bi a constituer sa base au niveau de euh, Kolda mm. mais le euh, chef lieu de département de Kolda il a gagné Mamboy avant ça ngay wax waxu Mamboy Boye Diagne Basse mais Mamboy achète agent des impôts et domaines bo xamné presque ratissé na Sénégal ok Mame a des origines au niveau de Bignona sa femme <laughs> n'est-ce pas Mamboy, sa mère est de Kaolack de Salou. Mamboy a fait ses études à celui non, à, à à l'UGB. À l'UGB, oui, mais oui. Pas, voilà, un ancrage national qui peut le permettre. Et je suis Est-ce que ne un Yo, ken dégo, ken je Mam Boy déclaré ou ken déclaré Non, dama la que japp ne Non, ne déclaré wul. Kan mo je jité suis nek ci toll di ci dox ba am ak xam xam jang tek mettre sa compétence Non, pour moi mom l'unique favori bi

il n'a jamais été directeur il n'a jamais été chef de service alors c'est une réalité politique. dama le Mame Boye li tax may wax loolu ci moom mooy euh, parcours am daf ko perception bi sénégalais am ci parce que ce déterminer élection yi en 2024 ce qui détermine élection c'est le vote de la jeunesse Mamboy Boye c'est une candidature innovante et plus il a il incarne plus cette jeunesse-là qui s'identifie à lui. D'accord. Mam Boy Diaw. qui a euh, 50 ans. Euh, euh, non, par rapport à ñeneen ñi laa wax. par rapport à ñeneen ñi ah, Mam Boy Diaw. mais bien sûr a innovant ci candidature. c'est une candidature hein. plus innovante. c'est une candidature bi gën à dëppoo ak jamono.

Mame Boye da nga ko gis dégg muy taxaw di. mais dafa waaw sant yi ñuy nekkee ak Sonko da nga dégg maam au contraire. dafa euh, taxaw ci tere moment boo xamante ne ñoom dañoo jàppoon ne saaga Sonko xas Sonko moo la may nomination mu assumer sa fraternité ak Sonko Mame ko def. d'accord moom bi ñoo na.